Bon, d'abord, je me présente. Ousseynou Fall, je fais partie du collectif des avocats du maire de Dakar, M. Barthélémy Toy Diaz, en même temps que d'autres confrères, Maître Hureshiba, Baïsen, Hassim François, Dembosiré, Bachidi et d'autres confrères. Donc, euh, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le dé délibéré a purement et simplement été au 21 septembre 2022. Nous prions Dieu, Allah le Tout-Puissant, de nous accorder une bonne santé, une longue jour-là, Nous assistons enfin à une décision qui fasse honneur à la justice sénégalaise et qui blanchisse enfin Monsieur le maire Barthélémy Toye Dias. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le moment, nous restons confiants. Nous faisons en confiance en cette justice et Inch'Allah, nous pensons que justice sera rendue à Barthélémy Diaz afin que le maire de Dakar puisse travailler utilement pour les biens et pour le bonheur des Dakarois qui l'ont investi. Dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez que ce renvoi est une bonne chose Effectivement, vous avez raison. C'est une excellente chose parce que ça permet de calmer, plus ou moins d'apaiser la situation. Je pense que nous vivons une période très trouble avec les élections législatives qui se profilent euh, au mois de juillet. Et compte tenu déjà euh, des, des, contentieux à n'en plus finir qui sont soulevés au niveau de l'instance électorale et dans tous les autres secteurs de l'administration, nous pensons que cette, euh, ce renvoi est une excellente chose. Mais écoutez, <laughs> les juges seuls apprécient, les juges, c'est la, la, Cour qui apprécie euh, des motifs de son renvoi. Nous autres avocats, nous ne pouvons pas inférer, nous ne pouvons pas être dans le secret euh, <laughs> des dieux ou bien des juges. Par contre, pardon Écoutez, le maire n'est pas absent. Le maire était en route. Le maire était bien en route pour venir. Quoique, dans cette euh, juridiction, à ce stade, le maire n'était pas tenu de venir assister. Nous autres avocats, on était là, on le, représentait valablement. Le maire étant n'est pas détenu. S'il était détenu, sa présence aurait été obligatoire. Mais compte tenu du fait qu'il qu a comparu libre, que, et je vous rappelle que c'est lui-même qui a interjeté appel de cette décision pour être blanchi. Voilà, cette décision, en fait, qui a été prise en première instance, que Macky Sall lui-même, dont Macky Sall même a dit que cette décision n'était hein, pas juste et que par conséquent, Barthélémy Diaz était innocent. Voilà. Donc pour, pour, pour, pour rappel, voilà, le maire n'était pas tenu de présenter, quoiqu'il il était en route pour venir se présenter devant le juge. Parce que le maire est très respectueux des institutions. C'est la raison pour laquelle il a tenu à interjeter appel. Et il était en route pour venir. Maintenant, maintenant lu ma leen di mën a wax ci wolof mooy ñu ñu ngi sant yàlla di euh, que santaat di eh, leen di xamal ne que décision bi dañ ko renvoyer dañuy ren dañuy proroger délibéré délibéré bi au 21 septembre léegi am na ku ma laaj léegi ne lu tax nu proroger ko dama ne loolu ñun mu mënuñu nekk si xelu magistrat suñ ko prorogé ñoom ñoo tax ñoo xam lu tax xëy na peut-être que dañu bugg a seytuwaat bu baax dossier bi xoolaat bu baax parce que waxoon naa leen ko suma point de presse ah nit koo xam ne enquête bi amuñu benn élément boo xam ne mi ngi prouver culpabilité ah enquête balistique bi nga xam ne mooy tax en matière criminelle ñu muñ a condamné nit kooku daf ko daf ko setel wecc ah ñu ne bal yi nga xam ne dañ ko gis si kooru euh, victime bi Ndiaga Diaw njaga Diop njaga Diouf ñu ne bal yooyu jógewul si arme bi nga xam ne Barthélemy Diaz boo ko yore ah donc euh, xam nga yooyu nag soo xamee soo jëlee élément yooyu yëpp amulo benn élément boo xam ne mun nga si sukkandu pour condamner nit surtout koo xam ne mu ngi nekk maire de Dakar ñu ngi investir nekkoon maire de Mermoz Djigar fi ñu investir ko maire de Dakar donc juge yi yaakaar naa ne dañuy dem ba xalaataat xoolaat bu baax seen xel xam ne ne dossier bi xam naa ne il faut ñu seytuwaat ko xoolaat bu baax. ndax toxal bu ñu ko toxol du ko indil ay gàllankoor si wàllu politique. toxal ko toxal. Euh, quoique ñun suñu sañoon tey suñu sañoon tey ñu joxe décision bi waxoon naa la ku si njëlbeen toxal bu ñuy toxal dafay mel ni benn épée de Damoclès boo xam ne dafay nekk sa noddu dina tax yoo nga bañ a liggéey wante yaakaar naa ne que yàlla lu muy def def na ko ba pare suñ ko toxalee c'est parce que fu mu nekk nii xam nañ ne que kii amul dara luñ ko mën a toppee wax naa leen ko. ci njëlbeen bi amul dara lu ñu ko mën a topp toppee Macky Sall si boppam nee na kii jugement bu ñu ko condamné taxawul fenn que Barthélémy Diaz est innocent. mais est que contexte rejet bi yaakaar ngeen euh, euh, bi ak yenn ak contexte social bi parce que situation politique bu ñuy traversé nii ñu fi situation délétère. dëkk bi dafa mel ni amatul autorité ku nekk day def lu ko neex ah ah kenn wóoratul kenn institution législative fu mu nekk nii ni ñu koy tuumal tuuma bu nekk ñu ngi naan daf fi nekkal Macky Sall fi nekkal du duma leen weddi nag wante man maa ngi encore am foi si institution judiciaire bi maa ngi gëm maa ngi gëm encore que institution judiciaire bi dina dox dëgg Barthélemy Diaz ñu blanchir ko ba faw lan moo tax nga ne lu baax la lan moo tax nga wax mais lu baax la parce que fi mu nekk surtout dañu nekk benn situation explosive fu mu nekk nii dëkk bi dara doxul situation chef kooku mënu ma leen ko wax mais dara doxul si dëkk bi mais kenn respecté tul dara kenn respecté wul kenn kenn respecté wul benn institution yaakaar naa ne nag institution judiciaire bi dina am magnanimité pour jox dëgg à Barthélémy Diaz. je vous remercie. Maître Ousseynou Fall avocat.